loolu nag dara taxul lu may ndénkaane yi nga xam ne jëlee nañ ko ci suñu kilifa mu dénkuñu ko ñu war a fexe ba sàmm ko rafetal ko ñu war a fexe taxaw temu tam képp koo xam ne yàlla dogal na mu gàmm si ñu fexe ba mu am benn jafe-jafe ba keroog muy delluwaat ci ay mbokkam loolu moo tax tey ñu daje woon nii incha allah di fa seen jébbale xéwal yi jox ko jaami yàlla yi nga xam ne sol sonal nañ ko gannaaw bu ñu paree ci kilifaay diine yi gannaaw bu ñu wëree ci mboolem kilifa yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoo tënk dëkk bi tey ci di màggal gu diggante bi sallallahu alayhi wa sallam ah ñëpp seeti nañ leen ci turu président Macky Sall dimbalante nañ ñoom ci turu président Macky Sall loolu moo ñu war. ñoom ñëpp ku ci nekk boo demee ci ñoom da nga daj fekk ci ñoom ak cant ak ngërëm ñeel président Macky Sall. mboolem kilifa yi nga xam ne ranu nañ seen keppaar yi ñëpp amu ci kenn koo xam ne santoo gërëmoo ci taxawaayu président Macky Sall ak jëflanteem bu rafet bi muy jëflantee ak ñoom ak yaakaar bëgg-bëgg nga xam ne wax naa ne euh, keroog bi ñu yàlla dogalee ñu ànd ak moom ci tukki lañ ko laaj mbiram Kaolack mun a àjjuma am na sax ñu ko doon wax ne ko am nga programme mun a Kaolack rek ah. waaye yàlla dogal ñi mu seq ak àdduna ak ñi mu seq ak Afrique. woo ko soxla ko xam nañ ne Afrique président Macky Sall bu demul dana am ay soxe soxe moo ah, tax mu mujj fomm pour dem ci daje boobu yéen ñëpp siiwur ngeen ko ci presse bi xam na ma nga woon foofa waaye bëgg-bëggam ak bëgg-bëgg ñun njabootam gi fi nekk mooy ñëwoon yenn doog ñun àjjuma jullee ñun juma siara kilifa yi safante ñom yendo ak ñom ba ngon jot comme ni ko defee fep soga a wañeeku Dakar jam ak bëgg-bëggam yalla ak dogalam waye nangul nañ ko bu baax parce que ngant bi nga xamné mom mu la am ngant ko ku xor rek gis ngant li donc ñepp nangul nañ ko ko waye téwut lepp lu waron def bu fi téwé rek jital nako def ko ci ay ndimbal ci ay xéewal ci ay moyen ci lepp lo xamné japp nañ né bu ko bu ñu ko defee gàmm gi dana yemb rek président Macky Sall ñëwul teew ci jëmm waaye jëfam ak man-manam umpul gàmm gi loolu moo tax dara manquéwul kaar macha allah lépp matale na comme ni ma ko waxee léegi soo su nga xam ne mi ko topp ci ginnaawam tam fu mu tegee tànkam rek mu teg fa ma naa dégg mag ñu baax ñi di wax ne ñu ngi topp yonent bi wala ñu ngi topp ci Tidiane bu tegee tànk rek ñu teg bu tegee ñu teg waaye soxna si ci loolu nekk fu président rek fanaan na fa kon daan mais gàmmu ren gi daal macha allah amuñ dara lu ñuy wax dara lu ñuy sikkal wala dara loo xam ne gis nañ leen lu ñu naqari leen waroon a manqué wala parce que lépp loo man lu ñu waroon a man ca mënuñ ko rek fekk nañu fa dimbale ñu bañ man ko. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على